les amis de Marème Faye Sall di massifié wu si biir réew mi ak bitim réew chaque semaine dinañ nemmeeku tournée gu ñuy amal ngir sensibiliser population yi ngir ñu mën a voter njiitu réew mi si élection yi di am si 24 février ginnaaw gox-goxaan yi nga xamante ni demoon nañ fa jamono yi weesu bi si mujj doon Parcelles Assainies bi la yoon délégation bi nga xamante ni moom la coordination nationale bi yoon yi ñu ngi ñëwoon si gën ginnaaw doon nag seeti la coordinatrice Sophie Kanouté mbooloo mu takku moo accueillir délégation bi ci ambiance bu jéggi dayoo événement bi sax ñu nemmeeku ni am na allure culturelle ndaxte toutes les communautés ñoo teewoon ku nekk nag wane sa bopp ñu mën a nemmeeku ci délégation yi nga xamante ni bàyyee ko ci gox goxaan yi sa Dia mi nga xamante ni moo nekk Fatick waaye tamit mouvement de soutien yi groupement de famille jeunesse bi ñëpp teew bokk na ci également ci ki jiite woon délégation nationale bi di caamam Mboup le coordonnateur adjoint di fàttali kuréel gu nu mel soxna Maretu Yum moo ko sos jublu si fexe ba soqali parti bii jaare ko ci ginnaaw madame la première dame Marème fay Sall objectif bi nag du leen lu dul fexe ba massifier parti bii jaare ko ci ñi nga xamante ni également ñoo meroon toog seen coin wala ñi mësul def politique ak ñeneen ak ñeneen am na solo loolu ndaje bi ndaxte conscientiser noonu population bi les amis de Marème Faye Sall. ndax Sophie dafa am engagement ndax ñun dañoo yor benn kuréel bu naan les amis de Marème Faye kuréel gii ñu samp ko daam ñoo xam ne dañoo sonn si président Macky sàll te gox buñ nekk dañ see gis su seen bopp léegi am na benn suñ benn jiit bu naan Marietou Youm moom États-Unis la nekk moom moo xalaat kuréel gi teg ko muy les amis de Marème Faye Sall. dama bëgg na ngeen tàccu manette yum ak Sophie Kanouté bii ndax Sophie Kanouté manette yum da ko oo daylu ko da ko ngin ngi neew gee nekk ne dama bëgg nga nekkal ma fa ndax am na ñoo xam ne dañu bëgg lool président Macky Sall te amuñ yoon boo xam ne fa la ñuy jaar pour dugg APR pour jàppale président Macky Sall ñu gis sëfi nag doy na lool sëfi muy dugg di def social ma yàgg ko suivre bu baax nag muy Sophie Kanouté bii muy sonn lool di def social ndax politique mooy lool ndax politique doo koy doo doo yàggee doo nangoo sonn si doomu aadama yi rek li nga bëgg di nga am sa fi nag daal nangoo sonn si doomu aadama yi nangoo sonn si nit ñi sa fi nag lii nga def nii ñun les amis de Marème Faye Sall ñun dañ cee kontaan loolu ndax lii mooy wane yow wane si preuve bi nga mënee wane nga ko yow wane nga loo xam ne lu rëy nga wane ndax ñu man caamam bu mi di coordinateur Kaolack dama kontaan trop ndax yow da ngaa def loo xam ne xoolal lu lu rëy nga def lu rëy nga loo xam ne ñun les amis de Marème Faye kontaan nañ ci lool ndax nit kat doy politique da ngay won yow da ngay wane preuve bi yow wane nag sa fidélité dama bëgg na ngeen ju tàcc ko bu Sophie Kanouté mi njiitu coordination bu gën ngeen neew bi mu jëlee kàddu sant loolu la def coordinatrice bi nga xamante ni jàpp na ni moo ko appuyer soutenir ko dalal xelam ba tey mu mën a ak si fii remercier également ñi nga xamante ni ñoom ñooy le membres de la coordination waaye nag maître moo bi doonoon na jàppale njiitu réew mi mu am deuxième mandat teg ko si boolo ñëpp jël kàddu ba si invité yi ak maire yi jiite groupement yeeg jeunesse bi si biir ndaje bu am solo bii. kon tata Mariétou yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fayal boppam may gërëm nag la coordonnateur national di ko mastawu parce que tey dafa nekk ci métit moo tax gisuñu ko fi. moo tax tey sax délégation les amis de Marième Faye Sall demewul noonu parce que coordination yëpp fi waroon a daje mais dëj dafa yemul ak dara te lu la bett mën la mu neex mu métti ñiy bàyyi lépp tamit ñëw kon nag tonton Thiam yow tam maa ngi lay sant di la gërëm ndax depuis ñëwagoo Sénégal chaque fois yaa ngi may encouragé naan ma liggéeyal rek dinaa la jàppale te jàppale ga ma doon wax war nga ma ko ba mu leer nañ yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fayal boppam tonton parce que ku ci nekk si yéen rek même bu ma amee lu ma métti dama lay jël ci suuf ngeen defaral ma conseiller ma ba mu rafet ba ñaawoo ma ci kenn ba fi may wax ak yéen maam na nag moom sama frère la maam na sama xarit la. lépp ndax nekk naa fal ndax def na ba pare nit ki nee nañ melut mu wax ni mu jëfe la mel kon moom wax waxam jarul am na bàyyi. ndax jëf nañu li ñëpp excès fi mu ne nii gannaaw suba ñu ngi toog fii bu neexee am na beneen yoon bu nekk fii xam nga ko ta léegi lu mel noonu ma ñëw pour ñu def laa politique autrement man du ma ànd ak nit te gëmuma la te son excellence moo liggéey lu tax man ma gëm ko man conviction lay ànd ak nit may wax ne son excellence li mu def ñëpp gis nañ ko kenn du naataable liggéeyam kon kooku jàppale ko day yomb may dalal seen xel nag di wax ne comme ni ko ñii jàll waxee lan mooy suñu combat mooy commune bi parce que problème mu APR yëpp commune u Guinguinéo neew la foog ñu boole sunu doole kenn soxlawul président rek moo soxla nañu boole sunu doole ba au du du 24 man mii ma am fi sax ñeneen ñi nekk APR yëpp am fi sax Benno Bokk Yaakaar am fi sax ñu renverser tendance bi parce que tam bëgg nañ suñu dëkk am beneen kanam ñu ngi wax ne soxla nañ chemin de fer bi nañ dalal suñu xel foofu soo excellence mi ngi siy def jéego yu am solo te di leen wax ne déjà signé na pour loolu mu nekk kon nañ dalal suñu xel si loolu te bu ngeen xoolee suñu logo ñun waa gin ngi neew ca kanam saxaar bi lañ ci def man doomu cheminot laa kon combat boobu man mii ci ñu koy xeex si laa bokk naka noonee honorable député Mamadou Moustapha Ndiaye moom it sant loolu rafetlu taxawaayu Sophie ne kat du tey yàgg na muy jàppale xam waaye nag lii mu def nii dafa ñëw rek jàppale également coordination bi nga xamante ni moom la ñu établir si dëkk bii gis na ni daal moom taxawaayu sofi si parti bii di APR lu kenn dul na table la. moo tax ma ne ànd balañ cee ma lu nekk mu nekk loo xam ne ànd bu yàgg la te wolof dafay faral di wax ne lu yàgg rek dëgg la kon vraiment loolu bu amee tey sunu rakk sunu jigéen ñëw. bokk ci kuréel googu ñu tuddee les dama de fay Faye organiser lu mel nii fii ci campement bi nga xam ne ñun ak moom ñoo ko bokk mu di fi def lu rafet di fi def lu baax di ko def non seulement ci dëkk bi mais di ko def également ci biti dëkk bi li ma ci indi firnde mooy sa mbokk yi toog di su may mag ak su may xarit muy sëñ Moustapha Guèye mais aussi ak sëñ Magay Guèye ak seen jigéen ñee ñu àndal ñu ni duñu yam fi danañ fas yéene wéy li nga xamante ni mooy activité yi ba faaw noonee kàddu yi di wéy ci ndaje bi nga xamante ne mi ngi tàmbale woon cinq heures ba vingt deux heures population bi bi nu ñëwee am na nu mbégte ci liñ fi jot a dégg fas yéene dem nag yóbbaale ko task seen kër waaye nag fas yéene doon partenaire les amis de Marème Faye Sall ci ginnaaw soxna Maretu Yum comme niñ ko bérale si bile ndaje bi doon am si gën ginnaaw naka samedi yamook fukki fan ak juróom si weeru janvier si atum 2019